bii mën am au niveau de cette commune de cette euh, commune là muy commune de Biscuiterie kon loolu nga xamné mom nga def sa njaboot gi au niveau de cette euh, euh, commune là vraiment ñu ngi koy rafetlu envers ces examens là parce que pandémie bi mun dem ba si biir tey cours examen bi robinet yi mais boo xale fan la ñuy kon yaakaar naa ni geste bi kon lu ñu lu ñu rafetlu la IEF dina ko rafetlu ñu ñu ñuy wër IEF dina ko rafetlu rawati nag bi nga xamante ne fi ñu centre bi te ñoo fekk fii le directeur d'adjoint et ses et ses responsables ñoom tam ñu rafetlu li ni mel kon yaakaar na ni ñun duñu def lu dul di lañ ñaanal yàlla li nga mën ren yàlla nga mën déwén li ko ëpp te ba nga waxtaan ak man ba noppi da nga ne Malick déwén sa avant ouverture am naa lu mën a sër waaye du ma ko waxagum léegi loolu man moom waxtaan nañ si mais incha allah bi di ngeen gis yenn action xamante ne après avant ouverture moom dina ñëw am na yenn su muy def parce que nit ki dina moom nee na buy def buy def du du du yëgle mais li lay def da nga ma def mais li war def incha bi ci contribution au niveau de de de de de l'éducation envers les écoles élémentaires privées et publiques mom incha bi lim mu si def dina ko def en cours d'année prochaine mi nga xamantene école tëj mais avant ouverture li mu def dina ko def kon ni vraiment ñi lay sant le la gërëm di la ñaanal yalla li nga mën ren yàlla nga mën déwén lu ko ëpp si barakaatu rasulillahi. tout ce qui va dans le sens de d'améliorer donc les conditions des élèves des enseignants d'une manière globale l'éducation on est vraiment preneur et comme je l'ai dit tantôt, c'est un geste que nous saluons à sa juste valeur et que vraiment euh, nous remercions Madame Jacqueline Faye du fond du cœur parce que nous, nous croyons au concept école-milieu, comme on a déjà dit. Donc, elle est native de la commune de Biscuiterie, bien qu'elle soit ailleurs dans une autre commune. Donc, c'est un geste vraiment que nous, que nous apprécions. Et on peut le remercier du fond du cœur, franchement c'est un geste très noble et très ambitieux qui permet le développement de la solidarité vraiment je suis là depuis cinq ans je donne des cours j'assiste les élèves durant les périodes d'examen mais c'est la première fois que je vois ce genre de vraiment on vous remercie on te remercie madame au fond du cœur nous sommes très contents nous sommes très émus.